FRAPP moo dal di nag génnee ab communiqué di xam ne ni huit cent quatre-vingt-dix millions de francs CFA gi ñu wax ne nag ba ngoom dañu ko sàcc këram moo tax FRAPP ne dafay saisir OFNAC CENTIF yi ak far ba ngoom nekk benn député de la nation ba noppi. nekk nag ab détenteur mandat public en conflit ak nag ay loi yu ñu voté ci assemblée nationale contre euh, thésaurisation boo xamante ni nag daanaka dañu koy tere Farba Ngom nekkul au-dessus des lois te nag dafa war a doon koo xam dañ koy daal di convoqué ca Saintif troisièmement Farba Ngom dañ ko war a convoqué itam ci CREI euh, pour justifier li nga xamante ni mooy origine licite wala boog illicite xaalis bi nga xamante ni euh, moom moo daal di nekk di tëdd di nelaw ca këram comme ni ko nag euh, supposé violeur bi daal di nag voleur bi daal di wax muy sàcc bi nag daal di xamle ni rek ni dafa am benn néeg boo xamante ni kër ba Ngom la nekk te ay saaku xaalis sañ fa daal di nag denc moom sax sa euh, fële nga xam ne mooy ca fenêtre ya la daal di nag jël. loxoom daal di fay nag euh, dugal euh, ngir nag génne fa benn saako gumu daal di nag euh, nëbboon quatrièmement Farba Ngom itam n'est pas au de la loi te nag of nag dafa war a nag autosaisir ngir nag jamono ji sax nga xamante ni mairie ba amul tous cinquièmement Farba Ngom itam nekk au de la loi te itam trésor public dafa war a moom itam saisir ngir récupérer xaalis bi nga xam ne mooy nelaw ca këram au moment où ay école jamono ji amuñu tous administration fiscale bi itam dañu war a saisir xaalisu Farba Ngom bile euh, daal di koy topp pour violation du code général des impôts euh, des règles bancaires et ak euh, dispositif relatif à la corruption concussion blanchiment d'argent faux monnayage itam yeneen infraction yoo xam ne dañ ko ci daal di nag boole te mu nduroo lool ak li nga xam ne moom la ñuy duppee thésaurisation septièmement immunité parlementaire bu Farba Ngom dañu ko war a lever ci assemblée ngir na ko convoqué eh, ci itam parquet mën a déclenché ay poursuites huitièmement itam Farba Ngom bu fekkante ne poursuivre nañ ko nag fekkee dañ ko ignoré par la justice et les corps de contrôle euh, comme ni ko benn ancien député ñu jàppoon ko à flagrant euh, délit euh, pour faux monnayage daal di amee dañu daal di nag xam ne Sénégal fu mu toll nii nag on t'en vint vers li nga xam ne mooy état de droit ci Sénégal dafay jeex deuxièmement Farba Ngom ñi nga xamante ne mooy collaborateur bu proche la ak immédiat bu président Macky Sall moom Macky moo initié loi portant création OFNAC bi daal di sax yee loi sur la CREI ngir combattre enrichissement illicite corruption fraude ak constitution donc Farba Ngom bu fekkente ne nag moom mi lii lépp dara fekk ko parce que nag proche la euh, itam proche collaborateur président Macky Sall amul benn citoyen à part et au-dessus de la loi FRAPP dana saisir OFNAC CENTIF procureur de la République euh, procureur spécial près euh, de la CREI inspection générale d'État Farba Ngom itam maire la inspection générale des finances DGID direction générale du trésor ñëpp la ñuy saisir CEDEAO